deret yi ñuy tuur ci aj ak umra day yet alfidiyatu jotoo waxoon nañ ko mooy bu defee luñ ko aaye woon ca armal ba jotoo war ko mën naa rendi ab gàtt moo ci gën a néew bu ko neexee def ko nag mbàggaleem dañ waxoon ne fu mu ko rendee rek mu baax ak li nga jàng léegi bay door a noppi muy payuk rëbb bu rëbb boobu war a fay te taamu faye lu bokk ci juróom kër xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëleem ba tey loolu kon deret la ju ñu dóor di ko tuddee payuk rëbb mu ne nag boo weesoo yooyu yaar li ñu tudde addiyu moo cee des ñetteel leen addiyu moom la koy waral mooy def tamattu mbaa xiraan def tamattu mooy waral gam koy waral alquran moo ko tudd ne fa man tamatta bil umrati ilal hajji fa mastaysara minal hadyi xiraan moom dañ ko xiyaas rek ci tamattu nde alquran moom tamattoo rek la tudd kon tamattu ak xiraan lu ci nekk dana waral addiyu ba tey warugar yi waxoon ci aj yi ci ëpp lu mu ca bàyyi war fay addiyu niki bañ a wax labbayka mbaa wax na ko waaye da ko yéex a wax ci gannaaw bu mu armalee mbaa tawaaful qudum warub néew boobu war ko te defu ko mbaa taxaw arafa ci bëccëg ba ci suba maalik bu dee ñoom taxaw ga ci guddi ga mooy farata taxaw ba ci bëccëg bu warugar la wala bañ a wàcc musdalifa wala bàyyee sànni jamre xàq ba mbaa benn jamre ci jamre yi mbaa ñàkk a fanaan mi nañ ci ñaari guddi yooyu ñu waxoon mbaa ñàkk watu yooyu yëpp bàyyi waru gara la ba tey saa yu jote amee jote góor jigéen rek moo xam yàq na aj ga moo xam yàqul aj ga faaw mu waral addi bu dee jote boo xam ne yàq na aj ga moom nee nañu woon haddiyul fasaad mënta ñàkk ay boole fay ak def addi yu moomee ak génne masur dañu woon su fekkee lam def man yu génn masur rek moo génn faaw addi yu moo ko cay war foo nag nit dañ ne woon bu fekkee ne bëgg bànneex a tax addiyu moo cay war kon daal yu mel ni ñooy waral addiyu addiyu mën naa doon gàtt mbaa nag mbaa gëléem waaye nag lépp yàpp muy gëléem moom lañ ci gën a taamu nag topp ca xar topp ca bay féete suuf li tax ñu gën a taamu gëléemoo yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ajam googee mu tàggoog xeet wi téeméeri gëléem la defoon ay addiyu juróom benn fukk yaa ñett moo ko rendil boppam digal aliyu mu rendil ko fanweer ak juróom ñaar ci lañ xamee ne kon muy addiyu muy tabaski moom mi ko moom mu rendeel ko boppam lañ gën a taamu lu may nag mu amee lor kon mën naa wuutal taamu nañu wuute addiyu mu fexe ba taxaw ak moom ci barab yi tedd yooyee muy foofee ci arafa ak ci almasharul xaraam ak ca minan waaye loolu nag bu dee lu ñuy loje baa ñu koy rendee ci minan moo tax muy wax te bu dee lu ñuy loje baa ñu koy rendee ca màkk moom benn sart rek lay am mooy faaw na boole xill ak xorum mooy faaw na tànkam jam ci àll ba door ko andi nag ci xorom ji rendi ko mbaa ñu loj ko addi moom faaw mu boole xell ak xorom daañu ko leeral léegi addi yi ñaari barab rek la am mooy minan mbaa màkk am na ñett sart yoo xam bu ca tasee ci minan lañ koy rendee benn ba mooy la tax mu def addi ma mu doon aj muy benn ñaareel ba mu taxaw ak moom arafa wala boog am ko ko weral taxawalal ko ko arafa ca guddi ga boole ci ñu sàtt muy ca guddi ga bu fekkee moom ci boppam taxaw naa ak moom arafa mu yor na at yi ma taxaw ak moom foofee ci arafa ci guddi ga mbaa ka ko wuutu defal ko ko loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi nag mooy fekk ñu toll ci ñett fan yi ñii loj ak ren bi mooy bisub fukkeel bisub fukk ak benn bisub fukk ak ñaar ñett fan yooyu nga xam ne mooy fan yi loj di fan yi ren bi bu ci ñett sat yi dajee nga xam ne addiyuma aj moo ko waral tayit boroom mbaa ku boroom digal taxaw naa ak moom araf ci guddi ga tayit ñu toll ci ñetti fan yi ñuy rendee kon mi nan la ñuy loje addiyuma bu dee lu ñuy loj ba tey bu dee lu ñuy rendi mi nan lañ koy rendee bu sart yëpp xëttee nag mbaa benn rek xëtt ja kon màkka lañ koy rendee bu ca sart ya dajee nag rendee mbaa loj gañ koy loje ca mi nan lu war lay doon na boroom moo tax sa waxee woon nag dafa ñu ak sopp nee na bu ca sart ya dajee itam dañuy sopp rek ku ko defe foofee ca mi nan waaye du nekk lu war wax bu gën a war nag mooy day doon kay lu war at yi moom manti doon nag faaw mu boole xëll ak xorum maanaam tànkam war naa jam ca xëll ja jam ca xorum ja mel ne tey boo ko jëndee woon ci biir xorum ji daal di koy rendee rek ca xorum ja du baax mel ne ñi nekk foofee ca minan ñetti fan ñooñee ñu jënde fa daal di rendee foofee du baax dañuy sàtt faaw ak tànkam na jam ca xëll ja jam ca xorum ja bu boolu réew yaa rek du doy ñu sart itam du loj muy rendi ñu defe ko ci bëccëg bu ñu bëccëg bu ñu bëccëg nag mooy gannaaw ba fajar fenkee rek moom donte sax booba ilimaan moom rendeewut mbaa jant bi fenkewut waaye fajar fenk nag daal nañu jàpp ni bëccëg dugg na bu lojee mu baax bu dee nag la waral addiyuma moo di xumra kon gannaaw bu doxee safaa maro wa noppi ca xumra ga laata muy watu foofu lay loje addiyuma mbaa bu dee rendi mu rendi door a wattu nag waaye nag bu jiitalu wattu ko itam door a loj mbaa door a rendi du ko tee baax dañoo sopp rek jiital loj ga mbaa rendi ga bu ñu nee nag màkk lañ ko war a loje mbaa fañ ko war a rendee suñ ko fa defee ca màkk rek mu baax waaye sopp nañ ca marwa lay doy ci addi yu ci tolluwaayu at moom nee ñu ko bëgg wax tabaski ñoo yemoo rek daañu ko wax lay tabaski ñoo ko yemale sikk sa koy tee doy ak sikk sa nga xam ne du ko tee doy waaye gënu ca yëpp daañu ko leeral ci tabaski nga xam ne ñoo ko yemale ak yow tabaski ñoo ko yemale addi yu nag moom am na jàpp na ci wet waxtu woon koy ràññeel ni lii mooy sam addiyu bu fekkee ne atiya mat na amul tam benn sikk rek dal nay baax gannaaw ba boo bëti ko woon am sikk itam njëkk nga di ko loj ba njëkk nga di ko rend itam du wàññi dara waaye nag ba nga koy ràññeel ne lii mooy sam addiyu moom bu fekkee ne booba matalugut na war a toll ci ak dund maanaam mel ne at yi matagut mbaa boog mu am sikk gannaaw ba boo bëti ko woon matal nu mu war a toll ci at laata nga di ko rendi mbaa sikk si nekkoon dem ba dañ ba set wecc itam du ko tax a baax ndax waxtu wa ngay ràññeel rek moom la ñuy seet bu dee lu ñuy wutal ab caq ca baat ba koy tuddi am ràng te muy gëleem ak nag ba nga koy ràññeel di ko ràngal la ñuy seet ci waxtu wooyu ba xam mat naa matut sikk naam sikkut bu dee gàtt xarak bay nga xam ne kenn du leen ràngal ba nga leen di ràññeel rek jàppee leen lii sa addiyu boobu la ñuy seet ba xam mat na ñoom matuñu seenu manque gannaaw ba du ci wàññi dara addiyu ma bu dee gëlee wala mu nag daañu taamu nga wutal ko ràng mel ni ab caq booy sol ca baat ba caq boobu dañoo taamu nga fekk lu bokk ci gàncax gi sax ci suuf si nga ràbb ca rek takkal ko ndax dañuy bañ boo ko defee buum bu dëgër bu lonkoo mu xerandiko gàncax gi day tax bu demoon ba lonk itam te bisul ko ko lonkor ci it bu xëccoo rek loolu daal di dagg daañu soppi itam nga boole ca yaari dàll yaari dàll yoo xam ne da nga koy def ca caq boobee loolee nga koy ràngale sopp nañ ba tey bu dee gëléem ci jigéen ba nga xotti ca lu tolloog ñaari kóoli baaraam la nga cay xotti toll ne ñaari kóoli baaraam ba deret yooyu sotti ko ràngal googu nag ak xotti googu ñu xotti ca baat ba ca wetu càmmoñ nga loolu lépp day wane ni lii ab addiyu la miskin yi nga xam ne am nañ ca xemem mën nañ caa topp ndax rek buñ ko lojee ñu mën caa jariñu sopp nañu nag booy xotti yaramu gëléem nga nga wax bismillah ba tey bu dee gëléem moom addiyu ma daañu taamu nga wutal ko mbubb mbubb daal di ko koy solal te xotti fa tolloo jigéen ba nga xam ne fa nga xotti woon ci yaramam boo ko solee mbubb mi du tee xotti ko boobee di seeñ ndax li nga xotti mbubb ma fa tolloog jigéen ba koo xam ne addiyu da koo war te amul njëgg ba mën koo jënd ba am na njëgg waaye gisu ko ba di ko jënd kon dañ koy woorloo fukki fan ñetti ñi moom bu fekkee ne la waral addiyu ma day lu jiitu taxaw arafa mel ne xiraan mbaa tamatu mbaa jéggi miixa xam ni moom daal la waral addiyuma jiitu na taxaw arafa kon na fexe ba woor ñetti fan yi la dale ci ba mu armalee balaa taxaw arafa ndegam xañ na fa bu fekkee ne ñetti fan yi xajul diggante boobu ñetti fan yi mu nekk mi nan kon na ko woor su ko defee nag bu ñibbee daañu ko wax léegi doon juróom-ñaar muy fukk su fekkee ne nag la waral addiyuma day ci gannaaw taxaw arafa mel ne ñàkk wàcc musdalifa wala ñàkk sànni jamra kon ñetti fan yi mu woor rek mu daal di baax dañu diw moo xam ne aj waralu ko xumraa ko waral su fekkee ni mënta am addiyu bañ di ko woorloo moom it ñett fan ñooñee waxtu mu ko woore rek mu baax bi ñu ko sàkkal wenn waxtu bu wooree ñett fan ñooñee da cee tegaat juróom-ñaar muy fukk waaye nag day bàyyi ko minan njëkk su bàyyi ko minan daal doonte ñibbeegul ba fa mu dëkk nit mën naa daal di woor juróom-ñaari fan yi waaye nee nañu nag bu fekkee ne daal bëgg ngaa génn ci wuute ba def la gën a wóor da ngay bàyyi ba ñibbi ba sa dëkk door def juróom-ñaari fan yi kon suñu borom dane wa sabaxatin isa rajaatum dem dellu ngeen kon juróom-ñaari fan ñi moom bala nga ko mën a woor faaw rek lu mu néew néew ñu weesu taxaw arafa waaye nag boo dalee di woor juróom-ñaari fan ña te sax taxawal goo arafa moom du baax su fekkee tàmbalee goo woor ci bi nga ne man aw ma addiyu laata ngay tàmbalee woor rek am nga addiyu donte am nga weesuwut ku la mën a lebal loo ko jënde te am nga loo ko fayee boo ñibbee yooyu jamono def ko addiyu rek ay baax waaye ndegam tàmbalee goo woor boo wooree itam du baax bu tàmbalee woor nag donte dem na ba ci bisub ñetteel ba laata jant bay so bu mën a am addi itam daañu sopp mu def addi yu ma tabitee nag mu àggale bëccëgu koor boobee ndegam dem na ba ci bisu ñetteel ba bis bi jant bi soxagut bu mën a am addi yu dañuy sopp rek mu def addi yu ma waaye du tee nag mu àggale bis boobee ci takk-takk ma nga ne deret yi ñu tuur ci aj ak xumra ñeenti xaaj la ci boo dee seet ndax ka koy tuur sañ na caa lekk wala sañu caa lekk xaaj bu njëkk bi moom dañ koy wax ne ko sañoo cee lekk benn yoon moo xam àgg na ci barabam moo xam àggul ci barabam barab ba nag jàngoon nga ko mooy minan mbaa màkk am na sart yi tax ñu war koo defee ca minan moom addi yi am na lu tax ñu war koo defee màkk xaaj bi njëkk bi nag moom jàppal ne mu àgg ci barab baag mu ñàkk ci àgg ñoo yemoo ñetti laata mu ciy àgg mu nar a dee mu rendi ko di ko sañ a lekk benn yoon xaaj boobu nag da nga koy def ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy addi yi moo xam ne da koo nisër ràññeel ko jëmale ko ci ay miskiin mel ne xar mii wala gëléem gii wala nag wii mu warlu koo def addiyu jox ko miskin yi kon lu mu nisar la ndax nisar mooy warlu te da koo ràññeel te jëmale ko ci miskin yi moo xam jëmale ko ci miskin da koo tudd ci aw làmmiñam mbaa da koo yéene mbaa daa boole yaar yëpp yéene ko wax ko ca làmmiñ wax at yi moom mu nisar te ràññeel ko jëmale ko ci miskin yi moo xam jëmmi miskin yi ci boppam da leen ràññeel moo xam ràññeel leen seeni jëmm da ca mën a lekk benn yoon moo xam àgg na ca barab ba wala àggul ca barab ba ñaareel bi mooy addiyu moo xam ne moo ko coobarewu waru ko nisaru ko waaye nag da ko yéeneel miskin ya da ci sañ a lekk benn yoon moo xam àgg na ca barab ba moo xam àggul ca barab ba ñetteel bi nag mooy bu defee luñ ko aaye woon ca armal ga te war a def fidyatu jotoo gàtt boobee ñu ko waxoon ne ko moom ngay def muy fidyatu kooku nag ñaar la léeg-léeg mu yéene ko muy addiyu mu amee attib addiyu léeg-léeg itam du ci yéene addiyu fideetu rek la ci yéene bi mu toll nag mooy fideetu kese la ci yéene yéenewu ci addiyu kon dañ ne woon barab bu ko neex ak jamono ju ko neex la koy rendee waaye jàppal ne moom lu yàgg-yàgg da ci sañ a lekk benn yoon loolu nag mat naa xam ndax bu bàyyi woon ba ñibbisi door a rendi ab gàtt muy fideetu nga xam ne kon moom da ci sañ a lekk benn yoon loolu mooy xaaj bi njëkk bi nga xamee ne moom ci sañ a lekk benn yoon moo xam njëkk barab bala moo xam gannaaw bu agsee ca barab bala xaaj ñaareel bi nag gannaaw bu agsee ca barab ba moo xam minan la moo xam màkka la du ca sañ a lekk waaye nag bu naroon a dee mu rendi ko te agseegul ca barab ba moom sañ na caa lekk da tax sañ na caa lekk mooy day war a def mu ko wecci léegam agseegul ca barab ba nar a dee mu rendi ko daa war a def meneen mu wecci ko moo tax kon sañ na caa lekk bu agsi woon ba ca barab ba nag moom du ca sañ a lekk dañoo jublu bu agsi woon ca barab ba ba mu loj ko mbaa mu rendi ko ba jaanam wàcc du ca sañ a lekkati xaaj bii moom itam ñett la ba ci jëkk mooy lu mu nisaral miskin yi waaye bii yoon ràññeelu ko xam nga benn wees woon moom da ko ràññeeloon ne naw yi mbaa gëléem gi mbaa xar mi mbaa bëy yi bi nag moom dafa nisara defal miskin yi lu muy rendi benn wax na ko mbaa mu yéene ko waaye taxul nag mu ràññeel loolee kooku moom su fekki àggagul ca barab ba nara dee mu rendi ko sañ na caa lekk ndax faaw mu war a def meneen mu ko wecc su ko si àgg nag ca barab ba ba mu def la mu war a def dañ ko ne sajaan wàcc na du ci sañ a lekkati ñaareel bi mooy fidyatu bi nga weesu woon ci gannaaw da nga ne woon mooy bu fekkee ne yéenewu ci addiyu fii nga toll nag mooy fidyatu bu ci yéenee addiyu day amee atteeb addiyu su ko dee jiital di yóbbu nga xam ne kon ndegam yéene la ci addiyu faaw màkka mbaa mi nan rek dañ koy mën a defee laata muy àgg bu naree dee mu rendi ko mbaa mu loj ko sañ na caa lekk ndax ba tey da ko war a weccee meneen waaye nag bu ko si àgg ca barab ba ba noppi ba mu def lu war a def ba jaanam wàcc moom di ci sañ a lekkati ñetteel bi mooy jësaa ut saydi payug rëbbu bu rëbboo ni nga ko weesoon ci gannaaw lam cay fay bu doonee lu ñuy rendi mbaa lu ñuy loj su fekk àggagul ca barab ba mën na caa lekk ndax faaw daa war a def mu ko wecci waaye nag bu ko si àgg ca barab ba ba mu def lu war a def ba jaanam wàcc moom di ci sañ a lekkati xaaj ñetteel bi nag moo def mooy nga xam ne bu fekkee ni àggagul ca barab ba du ca mën a lekk waaye nag bu ko si àgg ca barab ba ba noppi moom mën na caa lekk dafa faanoog bee nga weesu woon boo ko bëggee takk nga ne alqismu taalis laa yajuusu al aklu minhu qabla al mahalli wa yajuusu baada moom nag ñaari tomb dong la benn bi mooy addi yu moo xam ne yaa ko coobare waaye bii yoon defaloo ko miskin yi boo koy yóbbu laata muy àgg ca barab ba mu nar a dee nga rendi ko doo ca mën a lekk da ngay bàyyi ñu nekk foofa lekk waaye nag bu demoon ba àgg ca barab ba moom da nga rendi ko ba àggal da nga ca mën a lekk ñaar yi mooy loo ni sër ràññeel ko niki xar mi mbaa bëy yi mbaa nag wi mbaa gëleen ji waaye ba tey defaloo ko miskin yi da nga weesu woon da nga koo ni sëroon ràññeel ko jublu woon ci miskin yi benn wax nga ko ci làmmiñ fas ko ci xol mbaa boog fas nga ko ci xol moom booba bii nag moom tey rek loo ni sër war na ko ràññeel ko waaye jëmale ko ci miskin yi ci genn wet du ci wax du ci yéene kooku bu àggul ca béréb ba nara dee nga rendi ko doo ca mën a lekk waaye nag bu demee ba ca barab ba da nga ca sañ a lekk xaaj menteel bi nag moom yomb naa takk mooy li mu ne wa yaqulu mimma siwa zalika boo weesoo ñetti xaaj ñee addi yu moom doonati rek am nga sañ-sañu lekk ca day mel ni rek day mel ni rek sam tabaski li nga sañ day yaatu ndax mépp addi yu moo xam ne mu la war la moo xam ci aj la ware moo xam ci xumra ni kii addiyum tamattu mbaa addiyum xiraan mbaa addiyum jéggi ni xama mbaa addiyum bàyyi tawaaful xudóom te waroon la wala bàyyi watu mbaa bàyyi fanaan minan mbaa bàyyi wàcc mustalifa mbaa génne mesure yooyu yëpp boog tabaskee yam rek sañ na caa lekk sañ na caa jox ku ko soob bu ñu nee sañ na caa jox ku loruwut sañ na caa jox ab jegeñaaleem rawante na kon ku loru wala ab jaambur ci moom lépp loo wax ci addiyume boroom ci sañ caa lekk mbaa ñàkk caa sañ a lekk ndaw la mu yebal noonu la ca mel lu mu ca sañ rek ndaw la sañ na ko ca lu mu ca sañut ndaw la du ko ca sañ di nga wax ci yàppoo ci borom ak yu mi mbaa ndaw la sañ na caa lekk mbaa sañu caa lekk nosub gëléem ko itam mbaa mbubb mañ ko solal ate boobu lay amee fuñ ko nee sañ laa lekk ci yàppoo du sañ a soppandiku ca nos ba mbaa mbubb ma foo ci xam ne itam sañ naa lekk ci yàppoo ba tey sañ naa soppandiku ca nos ba ak mbubb ma borom at yu mi buñ ko nee sañoo cee lekk mu daal di cee lekk wala mu digal koo xam ne sañu caa lekk mu lekk ca nit mu digal ku woomal ku bari alal nga xam ne du ab miskin du faqir ne ko lekk ca mu daal cay lekk kon day fay at yu mu wet ci mooma bu yem rekk ci fay lu tolloog lam ca lekk mbaa la ci kookee mu digal lekk waaye day fay at yu mu sotti mu mat sëkk lu may nag benn tomb boo xam ne moom lu tolloog la mu lekk rek lay fay mooy bu fekkee loola da koo nisaraloon miskin yi te ràññeel ko ni ki gàtt bii mbaa nag wi mbaa gëléem gii mu nisal ko miskin yi mu ràññi ko noonee buñ ko ne waroo cee lekk mu lekk ci itam mbaa mu jox ci kum ci war a jox bu tolloog loolee rek la cay fay ak duñ ko ne fayal mu mat sëkk addiyu nag moom mënee su koo bokkaale mel ne kee def kee def fi ñu bokk jëndam addiyu mënee su ko mënee su koo bokkaale te mënu caa boole sax mbokkam mbaa soxnaam mbaa kenn doonte sax day addiyum coobarewu itam li su ko nangu waxa see wut nag addiyu ba ràññeel ko wutal ko caq bu dee lu ñu wutal ab caq am ko ko rendi koo xam ne da koo jaawale rek dafa woon ne moomama fekk du moomam kon borom addiyu mooy jaanam wàcc na rendi ko ko keneen rendi te jaawale rek tax du ca wàññi dara waaye nag bu fekkoon ne kooku kat moo ko tey wóor na ko ni mii mu rendi du moomam kon borom addiyu ma faaw day wut meneen daa wuteeg tabaski tabaski moom boo xasee wax ne ko rendil ma bu ko rendi woon yéeneel ko boppam ci loo xam ne moo ko tey du tee yow rek yaa ko moom ba tey sa jaan wàcc na waaye fii ci addiyu nag moom bu ko kooko rendilee boppam te xam ne ni moomu ko moo ko tey kon boroom addiyu ma day war a wutaat meneen addiyu ba tey nee na bu fekkoon ne da koo loj ba àggal mbaa mu rendi ko ba àggal ñu sàcc ko it du tee jaanam wàcc na def na rek moom la mu war a def waaye nag bu ko wutoon laata ma koy rendi mbaa laata ma koy loj ñu sàcc ko kon jaanam du wàcc ba tey kon say ba mu wuti meneen ba tey bu ko wutoon ba ràngal ko mu réer rek noonu xamaatul ci moom dara it lu doy faaw day wutiwaat meneen ba defal ko caq ba noppi mu réer ko réer ga mu réer tax mu daal di wut meneen ba jot a rendi moomee nga xam ne moom la wutaat gannaaw ba bu gisaatee moomee itam faaw da koy rendi ndax lam ko xasoon ràngal mooy lam ko xasoon caqal day tax faaw mu rendi ko su wutee addiyu ba defal ko caq mu réer ko mu wutaat meneen ba dafa ko caq moom itam waaye nag jotaguta rendi mii nga xam ne moom la bëgg mu wecc ma réer far nag ma réeroon feeñ nga xam ne kon yaar yëpp a ngi taxaw te mu ci nekk nu ngay ko caqam su boobaa yaar yëpp lay war a rendi ndax buñ ko ko siyee defal ràng moom muy caq boobu moom addiyu rek lay war a doon su fekkoon ne daa wutum addiyu mu réer ko mu ne kon naa wutaat meneen daal di wutaat meneen laata muy àgg ci waxtu loj wa mbaa rendi wa ma réeroon feeñ nga xam ne kon ba tey yaar yëpp ñu ngi taxaw kon bu ci amee moo xam ne xasoon na ko ràngal ba àggal moom ràngal rek mooy doon addiyu ma moom lay féetale waru garam ma ca des nu ko neex def su fekkoon ne nag ñoom ñaar jotuñu ca ràngal menn menn kon moom mooy tànn bu ko ca soob rek mu def ko addiyu